waa léegi nag kenn mënu kenn gënu koo mën a tooñ. Mm. léegi nag luñ ko war a def. Mm. Mm. moom de fi mu ne moom comme comme nii tooñ ñëpp moo leen gën a mën a tooñ. danañ ah. danañ ko def luñ deful kenn. moo tax gis nga. Mm-hmm. oustaz bi xalaat baax na. Uh-huh. xalaat baax na. soo mm-hmm. demee tribunal dossier bu mm-hmm. am na àtteem. ñoom ñu ngi may déglu. dossier bu ne am na àtteem. nangu nañ ko ñoom mm-hmm. mais kon dossier tëj juma luy àtteem te yàlla ak jaami mm-hmm. diggante yàlla mi ñu moom mm-hmm. moom gi néeg bi ñun ñu tëj ko luy àtteem après loola mat a xalaat nañ leen delloo ci xel yi delloo ci xalaat yi xam ne ñoo bokk réew mi seet loo xam ne am ëpp na yaakaar li ñu nekk lépp yaakaar man de gisuma lu tane gisuma lu gën. Hmm. dellu ci sunu hmm. Hmm. man de laa gëm. man Iran mii. amul benn ker gu ma wóolu. gudul keru yàlla. ker gooroonu gudul gu yàlla day ruus. keru yàlla du ruus mukk. maa indakum. maa indakum. wa maa indallahi. baaq. kerug yàlla du ruus. nit muy ruus. <laughs> wax ko benn nit ma ne ko yow demal nga liggéey nga ne di bëkk neegu di coggatu demal liggéey mm-hmm. sakanul mm-hmm. maa ko ko wax demal nga liggéey mm-hmm. yii ngay def taxawul day tax dan fiy ne di fen di jaxasi nit ñi rek demal liggéey ci nga cogg baaxul cogg day mën a fen cogg day tappale cogg cogg day jaxase cogg day rambaaj cogg baaxul nit buy dundee ñaqam day tranquille oustaz xam nga ñaat lañ séddale ci ceeb vingt tonnes ma dese. Mm-hmm. soixante sept millions séddale nañ ko. Mm-hmm. cent tonnes la ñu amoon joxe nañ quatre vingt mu des vingt tonnes. Mm-hmm. mais jo itte rek la. itte rek la. bul bul naw soixante sept millions du xaalis. parce que nit a ko defar. koy naw yàlla mi liggéey nit. jox ko xel. mu réaliser lii yàlla nga naan ko jërëjëf. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين yàlla nee na lu ngeen gis yéem leen ma ca mais bu leen yéem loola ndax maay lépp maay lépp ci lépp man du nelaw guddi bu ma oo biig jotoo ma ci samay téléphone ay minuit une heure la ma ni di jot parce que ci yeneen téléphone laay jokkaloo di liggéey ak nit ñi pour ñi ñu war a yóbbul ceeb ñi war a yóbbul enveloppe ñi war a yóbbul ceeb di coordonner loolu parce que mënoo déplacé wu. mii mm-hmm. nit dafay taxaw. Mm-hmm. waaye boo ñàkki dërëm jooy. Mm-hmm. boo ñu saali aana ni akrama nii li alxuraan di wax. nee am na ñoo xam ne bu ñu ñàkk yërëm tëlu. bu ñu amee beew. aana nii mooy yërëm tëlu. akrama nii mooy beew. waaw booy kaay ma paye leen comme ni Pape Gueye def. <laughs> sama euh, so waaw. nee na loolu lay lekk <laughs> nga koo xam ne boo amee ñëpp xam ko hmm. soo ñàkkee ñëpp xam ko muusibal hmm. ah, kon nañu am taxawaay Pape hmm. Gueye te ñu bàyyi coow yi kenn ku ne góor góorlu réew mi ñoo ko bokk te kenn ku ne bu sa wàll jeexee nga dem nit ñaa ngi dee ñuy suuli ku dee da ngaa jeexal te ku sa dund jeex danga nga doon dundee jeex ni ñi def si di dund mm-hmm. ku jeexal fekk la fa mm-hmm. ba adduna bi jeex yàlla ju àtte ñu ñun ñëpp mm-hmm. ku ne mu teg la fa mu lay war a teg nañ leen euh, dafa am benn waay bu ma ni waaye Ira da ngaa mën a nëbb lu tax biñ la convoqué waxoo ko kenn ma ne ko lu ma leen ma ñu kaas la ma ne ko ñu tëj jàkk ji kaasoloo yàlla loo ma kaasale doxal fale waa yow <laughs> yow jàkk yàlla yi ñu tëj ko kaasaloo aaroona ma ne ko yow kaaso nga naan boo ko waxoon ñu publier ko. Mm. nit ñi nangam nangam. Mm-hmm. ma ko yow bañ tëjee jàkk yow demoo xulal yàlla ka ñuy mm-hmm. kaasal Iran. Mm-hmm. te mu àndal ne ko waaw loo ci xam mu ne ko wax na dëgg nag. ah waaw. Arouna mënoo ne yàllay sa àndandoo. moom nga gëm moom nga wóolu. ci lu ñëw nga yuuxu. oo yuuxu jëm. ak lu xew. ak loo def. sant yàlla. maa ngi leen di gërëm nag. bu baax. Mhm. dégg naa lépp dama cee waxul rek. Mhm. man noonu la ma yàlla bindee. Mhm. dégg naa lépp ba ci xasida bi nga def. xasida bi nga def dégg naa ko. dégg lépp lépp lépp dégg naa ko. lépp lépp lépp dégg naa ko. da baax rek. waaye nag neex na parce que itam ndam la. su doon gàccee am tey. du ngeen wax. da ngeen naan muux rek. Ah, da naan miix rek. waaye gannaaw yàlla def na sutura ay mm. mm-hmm. mm-hmm. new ma la ma sëñ Mansoor waxoon ne ma doom xàcc mi dana la jege waaye du dal de mm-hmm. da nga tarxi waaye doo daanu de li la yàlla defal ngay muñi nag li leen ñuy def doom bàyyil xuloo nag dégg nga loolu la ma ci teg <laughs> waaw xàcc mi dana la jege du dal danga nga tarxi waaye doo daanu lii la yàlla defal ngay muñee li la nit ñi def dégg nga ma ne ko mu ne bàyyi xuloo nag mm-hmm. waaw <laughs> ku yàlla defal lu mu defal lu say morom nag doo xuloo nag mm-hmm. waaye mais sant yàlla mm-hmm. da sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax gis nga man yoruma baatu poto poto guddul sama baat sama baat baaras ba fa kursi yi ne sama baat fa la yegg fu ma neex jaar lu ma bëgg a wax wax ko parce que jubadiwuma mhm. jamais mhm. boo daggoon sama yàpp ay biir rek ay wat mhm. luy xaalis luy loolu soo bëggee ñaan ma moo gën ngay sos soo ma ñaanee ma may la bu ma bu ko yàlla dogalee parce que nit du def yàllaa koy def loo mais bu ma fenal non non non non bu ma waxal lu dul dëgg donc loolu sant ci yàlla lay doon bu baax a baax gis nga biñ ma convoqué. il mhm. faut ma leeral leen. Mhm. Mhm. wala yaakaar ne mbindeef yëg na ko. waaw dëgg la de. Abdou Sall. da ko war a yëg ndax moo ne ci daara ñaareel ba mooy bugaan ngay danee ko yëg. ci li ko waral. mooy dama ne ko man jotuma dara. xaw may lan la. bi ma commissaire téléphoné ma laajoon ko mu expliqué ma ne yoon may nañu. Mm-hmm. Mm-hmm. nit boo ko convoqué bu la laajee lan la nga leeral ko ci ban fànn la. Mm-hmm. te laa ko ne moom ka niki mbiru Grand Cœur la mu ne moom mu. bugaa ni moom mu. Ah, du problème nañ ma buñ ma woowee man ma leeralal leen. ma ne ko garaaw. looloo tax mu yëpp. benn bugaan. ñetteel ba mooy màpp. bi ma xëyee oolu ko ñu toog ci salle bi ci Dakar. laa ko ne dafa fu ma jëm lii nag laay dox mhm. mu ni ma waaw yow mhm. Iran mën ngaa nëbb ma ni ko noonoo dama uutul wallu mhm. ndax soxluwu ma ko ba aaroona xam nga ma Pape moomu xam na maas xam na dugg naa ci lu ne déggoo ma yuuxuwut ko ma wallu parce que damaa duggul ci lu bon Mm-hmm. ma ne ko nag lii laay doxe mm-hmm. saali wa ngi nii toog mm-hmm. Pape Diop doomu Njaga Diop moo ma doon kondir xamuñ fu ñu jëm ñoom ñaar xamuñu ba ñu yegg si ñu ma ma dugg ci biir sama oto gaare ma wàcc te la ñaar xam ne Iran fii la jëm bi ma duggee wax ak ba ma dama ko ne moom waaye lii lii mooy lan noonu <laughs> ma jaaxle naa di ndekki moom daal waa ji tees googu waaw mhm. ah. mhm. moom mhm. nee na dafa jóg jabaram da ko yóbbu woon ci grand cœur bi mu ko yóbboo grand cœur mataar maxu lañ koy am maxu mooy réalisateur bi maxu moo dajeeg jabaram ma koy wax déglu ngeen keroog ci te ci amee day dara waaw maxu nee na bi mu ñëwee ci bunt bi man la fa fekk yor cent mille francs ne ma dama bëggoon ngeen dimbale ma dollil ma ci ma opéré. Mhm. ndax bëggumaa dee damaa bëgg a dund. Mhm. maxu yërëm ko. Mhm. moo ko filmé. moo ko teg ci télé bi. moo ko publié. waaw lu cay yoonu Iran. man kay kaccen ma ci. ma ko publié bugaan jël ko en charge. fay fay médecin bi madame Dramé yóbbu ko. ba mu demee fekk ñu fay lépp. dañ maa nettali de wóoruma. ñu fay lépp mhm. ba ñu fayee lépp mhm. médecin bi xoolaat ko ni ko kii attanatul opération bi mhm. mënu koo def mu ne ko luy pexe mu ne kon bi mu bindal ko garab xanaa kon ay calmant la mu di ko naan ñoom ñu ñibbisi diggante bi nag soxna sa nee nañ faatu na mu ne nag lañ ko dajale loon lañ ko mhm. dajale loon mhm. pour jabaram nañ ko ko jox moom mhm. eh waaye sax man nag lii fi ma ko nettalee ree ay cukkutaan la ay ay ree la kay ay cukkutaan kese la ay ree la ah, moom adduna bi yëpp looloo leen jaaxal ñëpp wallaahi façon commentaire bu ne nga ci gis ñëpp a jaaxle ci loolu nu ko nit mën a def wallaahi dëgg lu ci yoonu yéena man maa ñëpp ci yam man damay ñëw toog grand cœur. Mhm. su ma toogee ñu ne Kabil man. su mhm. ma présenté émission bi. Mhm. yéen a koy seetaan. kiy présenté moo ma naan papa nee nañ Kabil lii la. nii la ñuy doxalee. ok. samay téléphone na bu Kabil génnee ba ma commentaire. ñiy joxe yón yóbbante def sama téléphone war yi orange moo ne yëpp mm-hmm. Mm-hmm. yi lii may wax dama son di ko waay seetaan ngeen mm-hmm. ku ci ne danaa ci bind turu borom ak la mu joxe soo fekkee ne amul tur orange moo la wala euh, euh, wari mu tu code la wala muy transfert déko dama ko daan jëlal numéro transfert su dee code ma ne ko jëlal numéro code a ngi nii toog bii passé rek li ma yor ci xaalis mu ngi nii xaw ñaata million la mu ngi nii ñee mm-hmm. ñu teg samedi bi passé rek mm-hmm. mu ngi nii ma garde mm-hmm. man loolu laa jëm nit ñi dañ may jox su ma demee ne ba foofa buñ tegee émission bi may ma temps ma joxe yóbbante yépp jalal leen ko ca table ja maas yàgg naa dem su ma paree taa table ja dem sama yoon da koy sol ci saako mooy sol ci mbuusam dem yóbbu baaleen naa ci loola lu ci sama yoon sa yoon ñëw ci. Mhm. kon kay na dem ca gars li ngeen doon dajale kay mosal leen ma ci waaye yoonu ngeen a ñëw. man damaa ñëw ci loolu. Mhm. ay nag alhamdulilah. wallaahi alhamdulilah. Mhm. man sama lépp a leer. dëgg